ñoom mbégte ak kontaante chers amis téléspectateurs justement de vous recevoir ici dans nos locaux sur la 2STV di leen jaajëfal yéen ñi taamu la 2STV di ko seetaan rawatina nag tey ci plateau bu yanj bi ak plateau bu spécial bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram umpalewu leen ni ñu ngi ci mois d' octobre buñ ne octobre xel yëpp dafay dem ci octobre rose te buñ ne octobre rose xel yi itam yëpp dafay màcc jëm ci li nga xam ne moom les cancers féminins moom moo waral nag suñu plateau bi tey mais rawatina li nga xam ne moom mooy cancer du sang ak plaidoyer bi nga xam ne bëgg nañ ko amal jëmale ko ci nguur gi ak collectivité euh, territoriale yi ngir ñu fexe ba gën a yombalal li nga xam ne moo jëm ci prise en charge bi euh, gën ko yombalal jigéen ñi gën ko yombalal malade yi gën ko yombalal surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ndax cancer xëñ na benn nit rek lay dal waaye ñëpp a koy ressentir autour de cette personne là moom a ñu daal di fiy dalal ay a jëmale ci mbir mi justement ngir waxtaanee lu ni mel waaye indi ci ay piste de solution ba tax na professeur faatu Samba Ndiaye mu nekk présidente association des femmes médecins du Sénégal mi ngi si plateau bi professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khadija. di la jaajëfal bu baax ci sa teewaay mi ngi janoo na ki nga xam ne mooy docteur Mamadou Moustapha Diop moom nag moom mooy directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la santé et de l'action sociale plateau bi. jërëjëf Khadija ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la remercier ci invitation bi. mu ngi noonu Ahmed euh, Dieye maire de Touba Toul waaye it nekk euh, représentant. union des associations d'élus locaux moom itam mi ngi ci plateau bi ndax bu ñu waxtaanee wàllum plaidoyer jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor collectivité territoriale yi faaw rek élus yi ñoom itam àddu ci euh, jëm ci seen wàll monsieur Dieye ñoo ngi leen nuyu di la jaar. ñu ngi lay fay ci plateau bi ñu ngi itam ki nga xam ne moom mooy euh, madame Fatou Touré Thiam moom nag moom moo nekk chargé de plaidoyer bu réseau Siggil Jigéen dinañu dab ci plateau bi fas yéene waxtaanee justement. ci plaidoyer bi ngir xool naka la ñuy def ba li ñu bëgg li waral ñu taxawal euh, plateau bi ñu daal di koy am ci jàmm mais laataa loolu bëgg nañ ñëw ak yéen ci li nga xam ne moom mooy euh, trois cap santé xool lan moo ko tax a jóg ak itam euh, ay jox ma ci yan angle la ko jëmale moom moo waxal professeur Fatou Ndiaye yow mi nga xam ne yow yaa nekk présidente association des femmes médecins du Sénégal waaye it mm-hmm. mu bokk ci kuréel li nga xam ne mooy trois cap santé bëggoon nañ nga ñëwal ñu ci trois cap santé tuuti alors jërëjëf Khadija maa ngi lay gërëm bu baax di la sant ci nii nga ñu invité ci plateau bi pour ñu wax ci wàllum octobre rose bi euh, bu ñu nee octobre effectivement dañuy xalaat octobre rose octobre rose mooy lu wàllu lu jëm ci cancer du sein lu jëm ci cancer ween yi alors pourquoi ma bëgg a introduire noonu parce que dañu seetlu ni askan bi dañoo sonn ci prise en charge boobu te ñun association des femmes médecins du Sénégal on fait partie de la société civile c'est la raison pour laquelle ñu nekk fi ñu teew fi tey pour ñu euh, xool naka ñun ci wàllum société civile la ñu mën a jàpp ci xeex boobee di euh, ñu fexe ba daan xeetu cancer yëpp mhm. euh, ci ci ci réew mi looloo tax ñun AFEMS dañu bokk ci benn plateforme bu tudd trois cap santé mhm. cadre de coordination et de concertation d'action de plaidoyer pour la santé au Sénégal euh, dafa ëmb lu ëpp ñaar fukki kuréel ñaar fukki organisation de société civile euh, seen mbir mooy ñu wax ci waxum plaidoyer affaire formation affaire yi ñu dem ci askan wi wàcc ci niveau bi gën a suufee mhm. pour ñaax nit ñi euh, former leen seet naka la ñuy ànd ñoom gunge leen pour ñu seet naka la ñuy jëlee seen propre santé en main looloo tax ñu ñëpp ñu regrouper wu ci autour de ce de ce de ce cadre la euh, qui est une plateforme en réalité euh, boo xamante ni dinañu tax ñu xool sunu santé naka lañ koy gën a euh, saytoo naka lañ koy gën a ñaxtoo naka la ñuy gën a xoolee possibilité ak moyen pour gën a euh, jël en charge suñu propre wér yaram mm-hmm. looloo tax a jóg 3 cap santé parce que mm-hmm. dañu ne jigéen bu ne am na droit saytu sa yaram am nga droit am une bonne santé am nga droit am une meilleure santé am nga droit disposer de meilleurs moyens des meilleures solution pour nga jël sa bopp en charge ci wàllum wér-gu-yaram mhm. lu lu am solo la te loolu itam tax na ba si élément bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy njëkk euh, jàllale ci plateau bi ngir firndeel li mu wax dañuy dem daal seeti koo xam ne moom jotoon na am cancer waaye mën nañ ne xeex na ba am ndam ci kaw feebar bi lu nu mel nag ngir war ne ni c'est possible nga am jàngoro ji waaye c'est possible ñu daal di koy faj fii ci réew mi te cas du benn du ñaar du jeex dañuy dem seeti ki nga xam ne moom mooy madame Woré Touré moom nag c'est une couturière jot na jàngoro ji ni ma ko waxee waaye daan na ko ñu seetaan ko dellusiwaat. boo ko tuddee rek. xam nga ni pour bu diis la kuñ ne da am cancer moom da nga naan man tey ma dee da nga jooy di nga def lu ne avant may jóge hôpital biñ ma ko annoncé jooy naa fa def naa lu ne ku ma kii ma oola ne la man am naa cancer damay dee mais am na ñoo xam ne dinañ dalal sa xel ah yow defal sa traitement rek yàlla baax na ah ak ak suñu borom ànd tamit yàlla mu ngi dimbali ba léegi ñu ngi vivre avec ça six ans maa ak moom def naa sama traitement yëpp ba pare macha allah ma sant yàlla bu baax tane naa bu baax te am naa ci aussi samay morom ñoo xam ne dund nañoo moom plus de six ans sax te ñu ngi dund ak moom macha allah di def seen traitement chaque année nga dem def sa scanner def sa mammographie yóbbul médecin bi mu xool su gisul dara ça va. waa prise charge bi moom diis na cher na metti na metti na trop parce que dafa cher daal opération chimio yi radiothérapie radiothérapie bi c'est à cent cinquante mille cent cinquante mille sax mën nañ ni cher na cherul parce que yeneen yi ñoo ko gën a cher scanner boo koy def di nga fay ay cent vingt mille te année da koy def mammographie bi nga fay quarante mille euh, chimio bi doon nañ fay bu njëkk mu gën a ñun suñ période dañ doon fay mais après état bi dugal na si loxoom bu baax te buñ sañoon tamit mu gën si dugal loxoom parce que chimio bi li ngay joxe lu mu tuuti tuuti noonu am na ñoo xam ne amuñu ko radiothérapie bi cent cinquante mille yooyu am na ñoo xam ne amuñu ko euh, ordonnance yi garab yi moom am na ci yoo xam ne dañ la koy may am na ci yoo xam ne amu fi tamit dañ koy jënd am na ci ñoo xam ne garab yu cher lañ leen bindal parce que am na ñoo xam ne da ngay naan ay garab cinq ans am na ñoo xam ne dañ koy naan à vie sax lii phase bu métti la nag phase chimiothérapie boobu moo gën a métti ci traitement bi parce que da ngay changer complètement ku la gisoon su la xamoon loolu mën na la bañ a tee reconnaître sax di nga ñuul sa weyi dañ sa karaw bi yëpp dañ dootoo amati benn karaw sa susil doo am benn karaw ku la gis day xam ni yaa quelque chose te nañ koy dund ndax euh, yenn saa yi di nga dëkk ay nit doo bëgg sax ñu xam ndax feebar nga parce que buñ ko déggee ñu ne kii leen mu dee kii moom dee na ba pare nit ñi di la yërëm loolu tax ñu bëri peut-être ñi koy nëbb sax ba seen feebar di avancé lool moo ko yokk parce que suñ la gisee nga ne man am naa cancer ñu ni kii moom dee na pare na ba pare boo xawoon si buru sax ñu ni cancer bi ñëwaat na kii de day dee te fekk ni yow nit ñi ñoo ñu mën a jàppale da soxla soutien sa soutien famille ñi am jëkkër soxla seen ba jëkkër ñi say dëkkandoo sax da ngay soxla seen soutien mais ku la xool daal ni ah waaye yow mi lan moo la dal xam nga loolu mën na yëngal keneen koo xam ne dara dalu ko sax xam nga ñun dañu bokk benn association association bu tudd ASMAT association bi dala jàmm lañ ko créer ay malaat ñoo ko créé di jàppalante di dimbalante ci suñu biir waa dalal jàmm nag jàppale ñu ci bu baax. association bi am na ñu bari ñu nekk si biir ci biir feebar bi la leen di seen jëkkër abandonné divorcé wala ñu abandonné la dootuñu la sax lijjanti mbala ñu takk beneen jabar xam nga loolu day yokk jàngoro te feebar bi stress baax si. waaw dañuy demandé wu question yu bari nag parce que danga naan man lan laa war a def wala lan laa war a kii ba am feebar bi mais après sa ngëm foi moo la ciy génne. mu nekkoon témoignage madame Woré Touré ni nga gisee ñëw na ci euh, annonce bi ñu ko njëkk a def ni mu réagiré gannaaw gi ba ñu ko xamalee ni mi ngi yegg euh, cancer bi waaye it li nga xam ne moom moo si topp dégg ngeen ko wax na faju na fii la jëlee fii la defee traitement am yëpp ba macha allah jamono ji mën nañ ne am na euh, tànn ci boppam waaye gis nañ li nga xam ne euh, docteur énuméré na ko ci euh, lu jëm ci maladie bi yëpp mm. moom mooy surtout soutien psychologique bi nga xam ne malade bi bu yëgee ne am na cancer soxla na ko ak yeneen yi nga xam ne moo ci tukkee abandon yi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy dund maa mm. it cherté prise en charge bi xaalis bi nga xam ne xëy na dis na ci ñenn ñi pour ñu jàppale ko ki nga xam ne moom moo amee cancer lan moo ci sa réaction ñu seetaan docteur Mamadou Moustapha euh, réaction bu njëkk yaakaar naa ay réaction delloo njukkal ak jaajëfal ak félicité ak euh, vraiment gërëm bu baax euh, soxna Touré bi mm-hmm. nga xam ni wax dëgg fa yàlla nangu na feebaram mm-hmm. ba pare nangu taxaw jël traitement am tey jii mu def témoignage ndax soo ko seetloo ay at ci ginnaaw mm. cancer dafa nekkoon loo xam ni nit ñi ñu ma wuñu woon génn taxaw ni man dama am cancer. dëgg la day am problème d' acceptation. Mhm. kon war a tóore mi wane ne tey wax dëgg yàlla. war nañu daanuñu ko sax tudd feebar bu bon bi lañ daan wax. voilà mu ngoog mhm. kon nag tey jii kii wax dëgg fa yàlla ku ñu war a jaajëfal la. ku ñu war a gërëm la. Mhm. parce que li mu wane rek mooy dafa am tey jii li ñuy wax changement de mentalité ak changement de paradigme. mooy cancer léegi watul nekk fatalité. du rek cancer également maanaam boo amee cancer rek tekkiwul ni da ngay dee. cancer euh, témoignage bi wane na ni Sénégal am na dispositif de soins. am na dispositif de prise en charge. maanaam mën nañ ko faj ci réew mi mën nañ ko toppatoo am nañ jumtukaay yi faj la ba nga wér. yaakaar naa vidéo bi wane na loolu. vidéo bi également wane na ni tey jii am na sax ay association de malades guéris. ndax ñi mel ni soxna Touré mi bari nañu. professeur Fatou Samba Ndiaye mi toog xam na ca dara. tey jii am na association de malades guéris du cancer. kon loolu mooy système de soin bi ministère de la santé am na lu mu def état du Sénégal am na lu mu def. Mhm. mais vidéo bi également wane na ay jafe-jafe. jafe-jafe bi ci njëkk mooy nit ñi choc bi mu leen di def choc psychologique bi mu leen di def. mais alhamdulilah ba nga demee ba xam ni tey jii boo jëlee prise en charge du rek joxe garab. Hmm. du rek ay radiothérapie ak i chirurgie. Mm. mais également dafa am ñuy wax prise en charge psychosociale accompagnement psychosocial. c'est important ndax tey jii am nañu ay travailleurs sociaux am nañu ay psychologues yoo xam ne tey jii ñoom it dañ bokk ci dispositif de prise en charge bi. Mm-hmm. wane na également lu am solo ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ni moom lañu am ci faj mi ci wàllu cherté bi accessibilité bi. Mm-hmm. mais loolu yaakaar naa tey jii état du Sénégal def na ci lu am solo ndax boo jëlee cancer du sein bi nga xam ne tey moo waral sunu. waxtaan bi tey ak cancer gynécologie sax laay wax moo xam cancer du sein moo xam cancer du col de l'utérus tey jii le traitement chimiothérapie est gratuit à cent pour cent depuis mille neuf euh, loolu tey état du Sénégal teg na ko boo jëlee radiothérapie également am na subvention ba nga xam ne tey jii malade bi fa mu waree fay sept cent cinquante mille wala lu ko ëpp tey jii cent cinquante mille la fay fay mm-hmm. également def nañ li ñuy wax aussi amélioration de l'accessibilité géographique. parce que boo seetloo juróomi at ci ginnaaw fukki at ci ginnaaw ñëpp Dakar lañ doon faju si. Mhm. ku amee feebar bi da nga daan jógee Kédougou. Mm. jógee Tambacounda ñëw ba Dakar mais tey jii non seulement Dakar am na dispositif mais on a fait ce qu'on appelle décentraliser dans cinq autres régions. c'est important boo demee Fatick di ko fa fekk. boo demee Ziguinchor di ko fa fekk. boo demee Saint-Louis di nga ko fa fekk. Mhm. boo demee cees di nga ko fa fekk boo demee Diourbel di nga ko fa fekk kon loolu yaakaar naa ay euh, effort yu am solo la yoo xam ni état du Sénégal teg na ko. Mhm. xam naa ci kanam dinañ ci gën a mën a xuus. Mhm. ci wàllu progrès yi nga xam ni moom la. mi ngi noonu ay effort yu am solo yu état du Sénégal def waaye xëñ na bu buñ ci dollee rek ñun ñu daal di euh, jël mi ngi noonu monsieur le maire. seetaan nga élément bi comme ñun lan moo ci sa sa xalaat. jërëjëf Khadija merci beaucoup ci invitation bi d'abord may ma ma nuyu téléspectateur u 2STV yi yëpp di mhm. leen ziar bu baax di kontaan ci invitation bi di nuyu également ñi ma sekkal plateau bi docteurs yi tey moom dama ne je suis entouré de docteurs <laughs> donc euh, di encourager bu baax tey féliciter soxna mu Waré Touré Euh, bi ma bi ma seetaanee vidéo bi sérieusement j'avais la chair de poule sama yaram dafa daw parce que dama xam bu baax fi mu fi mu jugee ak fi mu nekk tey mu nekk lu am solo loo xam ne euh, war na yee sénégalais yëpp war na yee askan bi ba ñu xam ne euh, feebaru cancer mën nañ ko faj ci mim réew maintenant comme ni ko docteur waxe sànq état def na ci ay efforts certes waaye collectivité territoriale yi aussi ñu ngi ci góorgóorlu hmm. en tout cas euh, ñun fi fi ñu féete mënuma nag wax ne ñëpp a ngi koy def mais bu ko ñëpp defulit ñi ëpp ñu ngi koy def hmm. te même ñi ko deful plateau yu mel ni yi ak plaidoyer yu mel ni bi ñuy def tey dana euh, gën a soññ yeneen maires yi ak yeneen euh, président de conseil départemental yi ñu gën ci góor góorlu bu baax Euh, pour ce qui nous concerne ñun par exemple euh, tey ça tombe bien <coughs> parce que démb rek démb toute la journée dañu nekkoon di def ay dépistage ci cancer ouais. gynécologique yi euh, du col de l'utérus et du sein mm-hmm. euh, démb dinaa ci gën a xuusaat ci kanam ci chiffres yi mm-hmm. li nga xam ne amal nañ ko ci commune bu Touba ak euh, matuwaay yi nga xam ne bëgg nañ ko jël ci résultat yi fa jot a feeñ voilà merci beaucoup. Mhm. ci kanam tuuti nañ ko euh, gën a yaatal professeur Fatou. Mhm. yow tam bëgg nañ am sa réaction ci ci ci élément bi nga xam ne moom lañ seetaan léegi soxna Touré mu dellusiwaat ci jaar-jaaram bi nga xam ne jot na ko am ak feebar bii di cancer du sein ca bañ ko ko annoncé ba keroog nga xam ne mun nañ ne am na ndam ci kaw feebaram waaye it gis nañ différentes étape yi nga xam ne jot na cee jaar yenn ñi à des fins heureuses waaye yenn itam am ay jafe-jafe yoo xam ne moom dundu na ko moom en tant que personne malade waaye it ton entourage alors Khadija témoignage yu Woré mi mhm. je je la connais parce pour l'avoir suivie pendant longtemps euh, dafay daw sama yaram parce que c'est une femme très très très courageuse jaar-jaar bi dafa metti woon parce que da ngay xëy suba teel ñu ne la ko tuy ni la da nga am cancer du sein boobu tamit côté boobu war nañu ci xoolaat suñu bopp. Mm. par rapport à l' annonce. naka lañuy ñuy nit ki da nga am feebar bu garaaw feebar boo xamante ni euh, faj bi dana metti dana jafe te dafa bëri effet secondaire. Mm. loolu yëpp ci wàllum plaidoyer yeeg formation yi ñu def loolu rek choc la déjà. Euh, mu nekk lu diis loo xamante ni première étape foog nga accepté ko d' abord. pour mën a euh, participer ki sa traitement parce que tant nangu woon ni yow am nga feebar tel doo mën a traité wu correctement donc la première phase c'était très difficile mhm. ñu wax la ni da nga am cancer li ngay njëkk a xalaat mooy dee mhm. am na suñu benn malade boo xamante ni moom déggul woon wolof bañ ko wax tumeur mu ne tumeur mooy tu vas mourir oh. <laughs> tumeur donc mu dugg ci benn état de dépression boo xamante ni parce que moom dañ ni tumeur rek mu ne tu vas xam nga cancer mhm. voilà léegi donc étape yu jafe la yu jafe-jafe-jafe la nga war a accepter d'abord feebar bi nga war a topp sa faj correctement nga war a def li nga war a def euh, topp médecin bi la doon suivre ba yegg si ci phase bi da nga ci sant yàlla. Mhm. mais avant boobu euh, ca jaar-jaar léeg-léeg mën na métti. tout à l'heure sunu patron euh, DLM directeur de la maladie docteur Diop mu ngi doon wax ni que état gi def na ci jéego yu bare bare bare man fekke naa ko. dama ci sant yàlla parce que bokkoon naa ca nu doon convoqué ci réunion ya pour ñu xool yan garab la ñuy wàññi lan la ñuy def pour mën a euh, gratuital traitement bi noonu euh, au départ ñun li ñu doon xeex mooy que na lépp gratuit mais par jéego nànk-nànk la pour le moment jigéen ñi moo gratuit muy butitu jurukaay bi ak ween bi mhm. mais am na yu bare yu des yoo xamante ni war nañ ci mën a gën a góor góorlu parce que comme la santé est une compétence transférée on va dire que peut-être élus locaux yi dinañ ci gën a jàpp pour mhm. diagnostic bi mhm. foofu laay taxawee parce que balaa nga yegg si ci traitement boobu ñu ne dafa gratuit yu ci bare gratuit wul balaa nga yegg ci garab yi ne dañ la koy may la ngay def avant pour ñu ne traitement lii nga am boobu yëpp gratuit wul loolu laay insister toujours maanaam bilan ya ngay def prélèvement ba ngay def mammographie ba ngay def qui coûte quarante mille quand la hmm. mammographie qui ne pas subventionnée mm -hmm. qui est subventionnée que quand on en plein mois de de d'octobre rose hmm. ñu ngi ciy gërëm aussi radiologues yi qui ont accepté de jouer ce jeu là di gërëm aussi waa ministère de la santé parce que de plus en plus dans les centres de santé les plus reculés am nañu appareil de mammographie fa ñuy ñaxtoo rek mooy ñu rendre ko gratuit ba nga xamante ni malade bi dina mën a ñëw def mammographie bi gratuitement. Mhm. analyse sanguine yi c'est pas gratuit. Mhm. passe ya ngay passe c'est pas gratuit. Mhm. hospitalisation ba c'est pas gratuit euh, perfusion yaak yooyu c'est pas gratuit. amaana def na nañu jéego yu rëy rëy rëy ñu ngi ciy gërëm bu baax nguur gi mais li ñuy ñaan mooy ñu rendre ko complètement gratuite à 100 pour cent xëy looloo waral plateau tey bi. pour ñu fexe ba euh, ñi nga xam ne ñoom waree dund nañu lii. nga xamante ne dañ leen ci jàppale moom ci boppam ak i mbokkam. Mhm. ba mu yegg si fii tey amaana am na ñoo xam ne amuñu ku leen jàppale ba ñu war a mën a yegg si fii tey. looloo tax ñuy ñaan rek bu nguur gi gën a mënee jàpp. Mhm. lépp gratuit pour la santé. de la femme au Sénégal de, de moom le monde d'ailleurs des hommes oui. Mhm. pas <laughs> de tout moom monde que cette santé là puisse être gratuite au Sénégal mën naa ne te buñ ci réfléchir tuuti war na nañu mën a trouver solution yi. mën naa ne te buñ ci réfléchir solution dina jib ci kanam tuuti ci docteur Mamadou Moustapha dina ci indi ay tontu ak monsieur le maire mais sànq waxoon naa ko am na ku ñu doon xaarandi ci euh, plateau bi moom nag moom mooy chargé plaidoyer réseau Siggil Jigéen moom Mame Fatou Touré Mame Fatou Thiam plutôt. Mm-hmm. mi ngi ñuy doog dab si si plateau bi Mame Fatou Touré Thiam maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu Euh, di nuyu également ñi mu bokkal plateau bi di wax exactement je suis de la société civile oui. et j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai agi mhm. depuis ëpp euh, na quinze ans ou vingt ans mais particulièrement maa ngi réseau Siggil Jigéen mhm. réseau Siggil Jigéen nag nekk euh, réseau boo xam ne am na dix-huit organisations yoo xam ne dañu nekk à travers le Sénégal mhm. quatorze régions yi donc lañu ñu donc di liggéeyal jigéen ñi rek ak xale yu jigéen ñi mais également suñu liggéeyalee jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi dafa mel ni liggéey nañu famille bi bu ñu liggéeyalee famille bi ñu ngi nekk dans le développement communautaire mm. donc lii ngay wax nii nekk lu ñu soxal sànq ba tey maa ngi daw ci oto yi pour ñëw parce que j'étais à Thiès dans un dans une conférence donc mu nekk lu ñu soxal nekk loo xam ne également daf ñuy permettre ñu rejoindre madame madame Fat Samb Ndiaye mm-hmm. ndaxte ñun communauté yi la ñuy liggéeyal xam ni ñu amee ay soxla te mënuñu ko faj xam ni ñu amee difficulté pour accéder aux services de santé mhm. et aux services sociaux parce que quand on parle du des de, des cancers de la femme vraiment c'est des cancers qui touchent la psychologie qui touchent également l'environnement familial mhm. ñuy toucher également l'environnement sociétal et avant ñuy àgg ci société bi l'environnement proximal de la communauté mhm. ñu nekk ñoo xam ne nag dañ ciy ànd ak ñoom di leen jàppale di leen dimbale mais xam nañ ne c'est des population ou des communauté défavorables mm-hmm. à la limite à la limite je pas dire le le le, le mot mais très vulnérables. très vulnérables donc euh, je pense que képp ku taxaw ci octobre rose. Mm-hmm. di leen gis parce que moment boobu la ñuy génne li nga xam ne moo ci xew moment boobu lañ koy gën a appréhender. moment boobu lañ koy gën a gis. Mhm. soo xoolee di nga xam ne am na lu nëbbu te feeñul te nekk loo xam ni moo gën a rëy. alors euh, je vous la parole parce que je que yaa ngi koy jox euh, sama beneen euh, mhm. camarade bi di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm ci li ñuy def ci santé bi di sant képp ku nekk ministère de la santé parce que man sama formation de base sage-femme la ah, di leen sant di xam li ñuy daj di xam li ñuy toog di ko xalaat ak li ñuy toog di ko wuti mhm. pour indi ko ci yoonu président de la république parce que foog ñu koy sant ñi fi jaar yëpp comme président foog ñu leen di sant parce que ku nekk def nga sa loxo ci mbir mi mhm. mais di leen ñaan rek dinañ ñëw ci loolu di leen ñaan rek dans notre plaidoyer légendaire parce mhm. que le, euh, le, le, la société civile les organisations faîtières dañuy plaidoyer pour un changement social et un changement surtout en matière de de financement dégg naa mu koy wax en matière oui. de financement mm-hmm. pour pouvoir prendre en charge li nga xam ne ñooñu ci Sénégal la ñu bokk mm-hmm. on parle euh, d'équité sociale oui. je, je termine je conclue oui, on parle d'équité sociale mais équité sociale également je pense que am na droit yoo xam ne ñi ngi nekk des droits constitutionnalisés te mhm. santé ci la bokk mhm. donc ku ci nekk war nañ la créer euh, ci sa environnement benn yenn condition yoo xam day day tax ne bu feebar ñëwee du la jël bàyyi waa Dakar mhm. bu feebar ñëwee du la jël bàyyi ci am donc euh, mu mel ne foofu bu ñu ko defee rek dugg nañ ci équité. Mhm. te équité dafa dafa yaatu te dafa fondamental pour permettre à ces populations là. Mhm. ñu nekk dans le bien-être social. Mhm. donc loolu laa amoon lu may jëkk a wax. en attendant rek muy wax am na solo te dafay rejoindre li professeur Fatou Samba Ndiaye wax sànq ba léegi ci naka la def ba plaidoyer bi ñëpp mën see jot waaye it ñëpp mën cee soob seen loxo ba gratuité nag moo tax ñuy wax. des soins jëm ci wàllu a la wax na ko lu ma nekk la à condition ko ñëpp daal di ciy sóobu ñu toog waxtaanee ko donc Moustapha docteur Moustapha Diop ñuy ñëwaat ak yow ci li nga xam ne mooy situation cancer du sein au au Sénégal tey fu mu waaw euh, cancer du sein estimation yi nga xam ni euh, moom la kuréel bi nga xam ni moom mooy Globocam mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy soytu. cancer ci àddina bi. nee na Sénégal boo ko seetee at mu nekk. Mhm. dinañ am ci topp ci onze mil trois cent dix sept cas de cancer maanaam loo xam ne ëpp na tey jii nii fukki junni ak benn doomu aadama yoo xam ne dañuy jànkonte cancer. Mhm. boo ko seetee nag cancer yu jigéen ñi ñoom ñoo ci ëpp. Mhm. mu lu demee ni ki cancer du col de l'utérus ak cancer du sein. su nga xam ni en tout cas at mu jot en moyenne lu ëpp ñaari junni jigéen dañ leen nemmeeku ñoo xam ne dañ am cancer du sein. Mhm. wala boog cancer du col. ndax nag boo ñëwee ministère de la santé ñun dans nos norme normes et protocoles ñun dañu def intégration maanaam jigéen bi bu ñëwee duñ rek xool ci wàllu cancer du sein bàyyi col mais on fait ce qu'on appelle une approche intégrée approche globale et vraiment tey jii boo demee ci suñuy service moo xam ci poste de santé yi la wala ci centre de santé wala ci hôpitaux yi vraiment c'est l'intégration moo tax octobre rose bii ñuy wax tey mhm. c'est vrai que c'est euh, euh, euh, dédié au cancer du sein mais dañ ko couplé ak le cancer du col qui est aussi un problème de santé sérieux ci jigéen ñi mhm. moo tax ñun intégration la ñuy def et vraiment c'est l'occasion ñu féliciter ak di remercier bu baax suñu experts yi ñoom professeur Fat Samba Ndiaye ak tous les experts vraiment en cancérologie ñoom ñoo ñu jàppale ba nga xam ne tey jii tous les documents normes et protocoles tey jii taxaw na au niveau du ministère de la santé am nañu sax lu ñuy wax plan de lutte contre le cancer. deux vingt quatre deux mille vingt mooy xam am nañu orientation yi. Mhm. def nañ analyse vraiment situationnelle bi xam nañ fan lañ bëgg a jëm di si les cinq prochaines années. Mhm. mais surtout lu gën am solo mooy sunu xeex dëgg dëgg dëgg dafa jëm ci wàllu prévention. surtout. Mhm. ndax cancer ak euh, de façon générale li ñuy wax euh, maladie non transmissible yi. dañu nekk feebar yi nga xam ni dañoo metti dañu diis te dañu coûteux maanaam li muy jar dafa diis. c'est vrai dañuy wax gratuité c'est vrai mais yaa il faut qu'il y ait un tiers payant même si c'est l'État qui paye. Mm-hmm. diis na tamit ci État. pour moom rek mu mën ko supporter. Mm-hmm. moo tax sunu plan yi tëral yépp prévention vraiment moom mu ci jiitu. c'est vraiment le maître mot. alors prévention boobu su ñu ko waxee nag c'est le dépistage précoce. oui c'est vraiment la détection précoce. Mm -hmm. mais le changement de comportement. Ouais. dans vraiment notre vie quotidienne. d'accord Mamadou si vous permettez docteur waaw. ci wàllu nekkin. Mhm. ci wàllu doxalin ci wàllu lépp. yooyu yëpp dinañ ci dinañ ci vraiment prévention. c' est le maître mot. c' est le maître mot foofu la ñu teg suñu. prévention sensibilisation dinañ ci ñëw ci kanam ndax am na solo bu baax mais dama bëggoon ñu dem seetaani ñaareelu élément bi parce que chiffres yi ñuy jox ci wàllub euh, cancer au au Sénégal ñu ngi ñuy wax ça tourne autour de 1500. Euh, cas de cancer au Sénégal mais bu octobre rose jotee rek xëñ na la ñuy gën a dégg communication bu jëm ci wàllu cancer et pourtant xëy na ça touche Euh, les personne tout au long de l'année moom moo waral dañuy dem seeti ki nga xam ne moom mooy docteur Issa Diop euh, Touré moom nag moom mooy directrice pays INP Expand ñu seetaan élément am dellusiwaat ci plateau bi pour les commentaires. maa ngi woote di ñaan suma bokk jigéen yi nañu commencé moytu ci ñoom ci seen bopp premier moytu bi mooy liñ naan am mode de vie sain beneen moytu bi mooy li ñuy digle ngay làmb sa ween ngay xool sa ween boo gisee lu la jaaxal nga daal di daw kër docteur waane nag boo dawee kër docteur doo fekk na aussi nga fekk fa les moyens de prévention lépp jumtukaay boo xamee dina tax ku xalaat ni am na loo xam ne soppeeku mu sa ween lu mën la gindi mooy moyen diagnostic mu disponible mais doo jóg def ay kilomètres dem ay région ki région bu nekk ci liste d'attente métti na boo defee boo amee amee yàlla dimbali ba nga def prélèvement ñu ne prélèvement bi yóbbu nañ ko bitim réew ay semaine wala buñ ko yóbbul bitim réew bu fekkee am la moyen fiire ni yàlla xam kañ lay jot nga jot sa résultat te jot sa résultat ñu ci rajo defalee ci lii bu metti metti metti lool. leneen tamit prévention mooy mammographie bi ñuy wax dëgg la ñu ngi wax octobre rose mais demain su ma sañoon lu nekk octobre rose day nekk loo xam ne day disponible tout le temps et partout ba nga xam ne bépp jigéen bu ko soxla mën immédiatement soo fi seen la jaaxal nga def ñu defal la sa mammographie bi wax la sa situation faju metti na cher na na lool dangay miraas sa bopp say mbokk miraas seen bopp te fii fii fi ma la wax ne jaar nañ fa yëpp dina yéex yéexaay boo xamee ne amaana sax soo demee ci traitement bi war a efficace du efficace nga daj métti chimio chirurgie radiothérapie ñu jóge fa ñu ci bëri daal di toog tuuti ñu ne métastase te commencé waat di faj da ngay fajo fajoo fajoo faju ba làttikaa bu jóge fi loolu daal métti na lool euh, ñi nga xamee ni yàlla def na kat feebar bi dal na leen service planification familial service la boo xamante ne dafa bokk ci seen faj kon nag nañ fexe ba nga xamee ne ñuy faj am ñi euh, offrir service yi lënkaloo bu ko defee service boobu mën a disponible ci ñoom te eh, di eh, dolli encore une fois appel ci réew mi ku ci nekk boo ci bàyyee sa waar am ci sa def ko ci am ci sa kàddu def ko ci soppee ko dina mun a am ngir cancer bañ a faagaagal ci kenn fii ci Sénégal léegi noonu mu nekkoon ay kàddu docteur euh, Issa Diop euh, Touré moom nag gën na ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, prévention bi ñu doon wax sànq di fàttali faral di palpéwu waaye it ñëw na itam ci importance bi nga xam ne service planning familial mën na ko am ci jàppale jigéen ñi alors madame Fatou Touré ci yow la ñuy jëm ak réseau Siggil Jigéen ak appui bi nga xam ne yéen a ngi koy defal jigéen ñi par rapport à ça. waaw merci beaucoup donc damay revenir rek. Euh, balaa ma dugg carrément ci appui bi nga xam ne ñu ngi koy def euh, damay jàpp ne il faut ma dugg ci prévention bi curatif bi ak promotion bi et heureusement que celui qui représente euh, ou bien qui gère le service de la maladie heureusement moom nee na mi ngi def focus sur la prévention mm-hmm. et c'est fondamental parce que dégg ngeen li docteur Issa sama mag wax léegi docteur Issa nee na bu xasee ba dugg da ngay jeexlu sa mbokk jeexlu te du tax nga wér parce que li mu laaj yëpp doo ko am. Mm. donc ñun réseau dañu teg suñu tànk ci prévention bi teg ko ci bu baax a baax nag. Mm-hmm. fu jigéen nekk ci Sénégal dinañ fa taxaw. fu jigéen nekk ci Sénégal am nañ fa ay point focaux yoo xam ne ñoom ñëpp dañu am transfer de compétence. Mm-hmm. pour ñu mën a jàkkaarloo ak euh, ñi nga xam ne ñooy communauté bi parce que communauté bi moo ñu ñor wut ay stratégie innovante de sensibilisation et de conscientisation ay stratégie innovante de sensibilisation lay bëgg a wax ak de conscientisation sur la maladie parce que nag octobre rose rek la Sénégal di wax maladie bu baax mais bu dul bu doon dañuy taxaw fu nekk wax ko ba àgg ci niveau boo xam ne famille communauté bi dañ leen conscientiser je pense que ñu dinañ jóg parce que dans d'autres domaine dañ leen a conscientiser parlant de la planification familiale mm-hmm. il un moment où on n'osait pas dire planification familiale. Oui. dañ ko doon dissoudre dans la santé de la mère et de l'enfant mais à un moment donné le réseau Siggil Jigéen day dem dans toutes les contrées du Sénégal taxaw fa ak ay partenaires am def ay consultations foraines sur la planification familiale. parce que quand même on a posé le débat au niveau communautaire. poser le débat au niveau communautaire c'est transfert un transfert de compétence parce oui. que commune la communauté elle est très complexe mm-hmm. Mm-hmm. mënoo fa dugg di leen sensibiliser ñu lay déglu mm-hmm. da ngay ànd ak seeni doom seeni doom yi ñu reconnaître ñun tel que les ñu ñu reconnaître ñoom tel que les bàjjanu gox tel que les relais communautaires tel que tel que femmes yi yore les réseau de femme femmes yi nga xam ne ñi ngi yore xaalisu communauté bi te luuba luñ ko ñoo ñu ngay àndal def un transfert de compétence dans le domaine li ñu bëgg population bi wala communauté bi dégg ko li ñu bëgg également communauté bi jëfe ko ñoo ñu jàllale ko fekk yow nga taxaw tu fais un contrôle des des messages yi ñi ñuy yóbbu et tu reviens pour revenir sur les messages et les améliorer loolu dafa am solo te yow nit ki ci boppam mënu ko su fa dëkkul comme je viens de le dire foog mu ànd ak ñu ko def bu dul octobre rose loolu presque amul certaines organisations ñoo koy defar te loolu war na mën a dugg également dans le travail de madame la sage li tax mu mën fa dugg docteur wax na ko léegi c'est des services intégré et on est en train d'intégrer mm-hmm. on est en train te bi ñu commencé intégrer boobu yàgg na ci Sénégal mm-hmm. mais dafa am yoo xam ne bu la dabee da nga leen di prioriser mm-hmm. dans la consultation qu'il qu'il faut c'est une formation nag les sages-femmes savent faire et tout ça maa ngi nii mais il faudrait que ñu réorganiser un peu un paquet de service bu ñuy jox la femme qui vient à la planification familiale et dans ce paquet de service qu'on intègre li nga xam ne moom la war a xam comme information même bu dee lu ndaw bul tàyyi boo koy defal jàngal ko bu yàggee nga jàngal femme yu bëri te bu yàggee communauté bu jàng bien que yombul mm-hmm. c'est quelque chose à suivre quelque chose à mettre en en place et quelque chose à peut-être euh, surveiller analyser ba xool ses impacts et tout ñun nag euh, dañuy wax ne ñun fu ñuy xoolee foofu docteur bi du fa xoolee parce que ku nekk am nga sa champ d'action le médecin am na champ d'action ci tout ce qui est prévention curatif promotion ba pare am na champ d'action ci ni mu koy dugalee am na également ay cibles ñun suñu cible c'est la communauté c'est les femmes donc ñun li ñuy xool rek mooy comment ces femmes là qu'on à qui on fait des offres de services dans des domaines yoo xam ne daf leen dañ daf leen a soxal tels que les domaines de l'autonomisation, mhm. les domaines du renforcement des droits des femmes et d'autres domaines ñun femmes yooyu nu ñuy fexee ba am gratuité sur toute la chaîne de valeur oui. ou bien la chaîne curative mhm. nu ñuy fexee ba femmes yooyu am gratuité mhm. dans la prévention dans le curatif dans la réintégration noonu laa koy waxee et même dans un volet très important qui est un volet, j'ai entendu quelqu'un le dire, un volet qu'on néglige un peu, ça veut dire l'appui psycho, psychologique et psychosocial. Oui, c'est important. C'est fondamental pour que la femme accepte. Mm-hmm. C'est fondamental pour, la, pour que la communauté accepte et change. Mm-hmm. Parce qu'une communauté, bu nekkee bu nekkee un un truc euh, à côté de l'information et elle ne prend pas l'information comme ça hein lu mu la neexee rek mu nga indi information mu jël ko mm-hmm. il y a une période information avec leur grille communauté yi dañu am seen grille am seen ficelle il faut les il faut aller vers elles pour comprendre les ficelles et les gris c'est à partir de ces ficelles et de ces grilles nga leen di jox information bi fexe ñu accepter ko buñ ko accepter dugal ko ci seen seen culturel bu yàggee changement de comportement bi ngay bëgg day am mais àggaguñu foofu ndax foofu boo fa taxawee da nga fay yàgg te le cancer est en de tuer au Sénégal. te jigéen lay rey. donc ñun on ne regarde que nos cibles nos cibles c'est les femmes et les donc dañu naan dañuy ñaan président de la République jaarale ko ci ministère de la santé parce que suñu sœur moo fa nekk madame madame le ministre Marie Khemesse Ngom qui est une femme très rigoureuse et très travailleuse ont partagé le même bureau à Thiès. Mm-hmm. qui une femme qui veut euh, qui a vraiment du goût pour relever des défis alors dañu leen di ñaan ñun société civile ne leen dañu bëgg ñu créer ñu ak docteur Diop mi nga xam ne moo yore maladie et son équipe mhm. et on le respecte beaucoup docteur Diop ñu créer ñu avec nous et avec les communautés un schéma un schéma de prise en charge kon xam nga commencé na ci prévention bi ba ci kaw mhm. un schéma de prise en charge où sont représentés tout le personnel qualitatif qui peut qui peut prendre en charge parce que l'assistante sociale et le travailleur social li ñu li ñu mën a jël en charge c'est le côté psychologique c'est le côté du changement mais am na ñoo xam ci personnel bi nu ñu ko jël en charge parce que du loolu la ñu jàng et dans la société civile tout le monde est imbu de ces personnalités qualitatives de changement tout le monde presque hein, dans toutes les organisations on a des personnalités ou du personnel qualitatif de changement yoo xam ne mën nañu porter le changement accompagner le ministère mm-hmm. mu nekk un schéma boo xam ne on va voir comment le Sénégal est gouverné actuellement il est gouverné par un gouvernement qu'on met en place oui. et qui dans sa constitution a dit que la santé est un droit constitutionnalisé mm qui est dans la constitution mooy suñu ndeyu suñu ndeyu loi ce qui veut dire que ça donc au niveau euh, vraiment euh, fêtier avec président de la République et son gouvernement qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup subventionné revenons à la mortalité maternelle a presque n'a pas mais a presque est presque réduit d'accord venons dans d'autres types de maladies telles tout il a mis son vraiment il a appuyé mais ñun jigéen ñi dañu ne ñun dañu bëgg mu defar ñu gratuité d'accord dans le traitement mm-hmm. et dans son schéma on a une gouvernance décentralisée mm-hmm. au niveau des gouvernances décentralisées qui ont qui sont constituées des collectivités territoriales ñun dañu bëgg ñooñu ñu teg en place mammographie parce que l'accès en ce moment l'accès parce que mooy problème euh, au Sénégal <laughs> l'accès dina gën a yomb bien que pour avoir un bon accès mhm. il y a un travail à faire derrière c'est le travail de sensibilisation et de conscientisation donc nous voulons un appareil de mémographe dans toutes les communes docteur va me dire mhm. su amee benn nañ ko def ñaar wala ñett mhm. au niveau curatif nañu président defal une gratuité constante et une gratuité qui qui s'appelle gratuité doo fay lii ak lii ak lii finalement dootul nekk gratuité parce que li ngay fay sax moo ëpp liñ lay may mm-hmm. docteur Diop docteur Diop ci <laughs> justement c'est important ci fi mu mm-hmm. daanalee nii mm-hmm. situation couverture euh, médicale bi bu ñuy wax mammographie ah. chimiographie chimiothérapie radiologie fan la toll ci ci réew mi waaw après yaay euh, jugé man a waaw euh, <laughs> tey jii vraiment ñu ñëpp d'accord nañu ni am na effort yu am solo yoo xam ni état du Sénégal def na ko yaakaar naa ku fekkee fukki at ci ginnaaw système de soins prise en charge du cancer fekkee 2023 di nga gis avancé ak progrès yi. bien sûr rien que chimiothérapie bi en 2023 la subvention a été augmentée de pour cent parce que dafa jóge un milliard ñëw ci un milliard cinq cent millions de francs CFA. Hmm. bu njëkk xamoon nañ ay jafe-jafe pour am ay ay chiffres. ndax tey jii. boo jëlee cancer du sin bi ñu waxtaanee tey ak cancer du col ak yeneen cancer yi ci ay estimation la ñuy basé wu jusqu'à maintenant mais depuis daaw ci fin octobre rose bi on a fait ce qu'on appelle la relance du registre du cancer lan lay tekki li muy tekki mooy Sénégal ci at yu néew dinañ am des données réelles mm-hmm. du cancer ndax nga tamit feebar boo ko bëggee saafara dëgg dëgg dëgg foog nga xam ampleur bi ak doole bi naka la tollu dëgg dëgg dëgg dëgg ci sa askan. Mm-hmm. ak naka la bindu. quelle la situation des régions. de façon comparative. et également euh, à Diamniadio tey jii ba fa demee am na un grand centre national d'oncologie boo xam ne dañ ko fay tabax bu paree dina nekk li ngay wax ëpp. vraiment par rapport à la prise en charge du cancer waxuma la Sénégal même sous région bi sax mën na fa faju mhm. et vraiment de façon intégrée ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen maintenant déglu nañ vraiment appel bi nga xam ni moom la réseau bi def te ànd nañ ci suñu sañoon euh, commune boo dem da fay fekk mammographie tey Sénégal quatorze régions la am mhm. région boo dem di fa fekk mammographie ki coûte quarante mille francs en moyenne mhm. ci octobre rose bi nag la ñuy profité def lu ñuy wax subvention à quinze mille mais région boo dem di nga fa fekk mammographie li ci topp aussi mooy euh, wax dëgg fa yàlla euh, ñi ngi góorgóorlu ci wàllu descentralisation tey jii chimiothérapie bi wax naa sànq ni à part Dakar il cinq autres régions et suñu plan bu sottee région boo dem di ko fa fekk. te la ne de même également pour la radiothérapie mm-hmm. tey jii boo demee Euh, région de Diourbel à Touba di mu fa fekk également radiothérapie kon ak suñu sañoon wax dëgg fa yàlla mbir mi day mate fu ne mm-hmm. day vraiment woyof ci askan wi parce que suñu mission mooy wax dëgg fa yàlla ñoŋal wér-gu-yaramu askan wi mais yombale leen ko woyofal leen ko mais tey jii y a le financement ndax boo xoolee les maladie infectieuses mm-hmm. wax dëgg yàlla comparé ko ak les maladies euh, non transmissibles financement yi tollowuñu Mm-hmm. kon tey jii même au niveau du ministère de la santé il y a un plaidoyer très fort bi nga xam ne ñu ngi koy def pour que vraiment les maladies non transmissibles ñu gën leen bàyyi xel ñu gën leen financer parce que rapport OMS bi li mu wax mooy boo jëlee téeméeri nit ñuy faatu fii ci Sénégal ñeent fukki yeeg juróom presque feebar yooyu la mm-hmm. kon nag ay feebar yu ñu war a bàyyi xel la ay feebar yi nga xam ne wax dëgg yàlla war nañ ci gën a mën a baral jéego yi. Mhm. te wax dëgg mi ngi mi ngi ci. mi ngi ci professeur Fatou dégg nga li nga xam ne moom la docteur wax yow. am appréciation nga am ci projet yi nga xam ne eh, <laughs> progrès yi état bi teg. <laughs> sama sama patron la de waaye du tey dina dina a waxal rek yow <laughs> patron bi tey dina comprendre. man étant étant actrice de la chose xam naa fi ñu jógee. ak li ñu dund nii nii ak fi ñu bëgg dem mm-hmm. je pense que débat yu mel nii c'est surtout pour ñu delloo njukkal dëgg la euh, ñi fi ne mm-hmm. sunu tutelle nguur gi et tout mais ñu gën a réfléchir par rapport ak fan la ñu bëgg dem l'objectif mooy que ni bu ëllëgee ñun li ñu bëgg di ko mbébét boobu ba léegi muy santé gratuite c'est vrai que la santé a un coût mm-hmm. c'est vrai qu'il faut toujours quelqu'un derrière qui doit payer qui doit payer hmm. est-ce que ñoom compétence transférée ñoom <laughs> collectivité territoriale yi la hmm. est-ce que suñu futur pétrole ak gaz bi nu ñëpp yaakaar xëy na am nañ fa benn pourcentage un wala deux pour cent bu war a tax xëy na hmm. ñu gratuital santé bi est-ce que dañu war a dem assemblée nationale ñu fexe na mu gratuité même bu dee dañuy dagg ci salarié bu ne benn cent francs bu ñu ko calculer dina am amaana ay benn wala ñaari milliards yoo xam ne dinañ ko mën a am par weer ñu dugal ko xëy na ci santé bi et cetera et cetera. Mm-hmm. li ñu fi réunir je pense que c'est pour ñu xool solution. Mm-hmm. man ci solution yooyee c'est vrai que ni def nañ lu bare dama ci bëgg dellusiwaat tuuti. Mm-hmm. il y a quelques années chimiothérapie n'était pas du tout gratuite. am na sax molécule yoo xamante ni man depuis deux mille un mille deux maa ngi traité ay cancéreux. am na ci yoo xam ne dañ ko daan importer dama daan dem ci pharmacie yu mag yi ñu ne dama soxla telle molécule. ñu commandeel ma ko ñu indi ko ma door a faj malade bi. mais depuis quelques années depuis 2018 2019 molécule pratiquement yëpp am na yëpp yi gratuit xëy na mooy col ak sein yeneen yi am na mais dafa cher ba tey mhm. foofu la ñuy insister nanu fexe ba lépp luy kan nii ñu defee dialyse gratuite nañ ko defee chimiothérapie gratuite pas pour dire col ak sein tout le monde pour lépp luy cancer cancer balaa ngay xam ni metti na nga am ci mbokk wala nga am ci ku la jege lool koo xamante ni yow sa bopp yaay jël en charge dal na la dal na ma dal na ñun ñëpp. dina ci def benn moment boo xamante ni analyse yaay fay paas yaay joxe lekk ba hospitalisation yoo tout yaay fay. Mhm. dafa diis. Mhm. c'est vrai que il faut que kenn fay ci kenn fay kooku il faut ñu réfléchir kan la war a doon nguur gi def naa jéego yu bare chimiothérapie yi am na yu ci gratuit yeneen yi gratuit intrant yi c'est pas encore gratuit. président promettoon nañu ba muy def pose première pierre u centre national d'oncologie que intrants yi dinañ gratuit gisaguñu ko ñu ngi koy xaar c'est vrai que également yokk nañ de cinquante pour cent on est passé de un milliard à milliard cinq cent mm-hmm. ci euh, gratuité chimiothérapie mm -hmm. c'est vrai également que cobalt ban doon wax waxatul ko sax léegi parce que mm-hmm. d'ailleurs ce n'est plus utilisé depuis des années dans le monde am nañu ay accélérateurs linéaires mm-hmm. quatre au total dans le pays mm mais peut mieux faire. Mhm. parce que boo dee xool ratio wu radiothérapie c'est un appareil pour un million de personnes. Mhm. on est dix huit millions au Sénégal on a quatre appareils de radiothérapie. Mhm. donc peut mieux faire ne serait-ce que am benn radiothérapie appareil de radiothérapie par région. Oui. on aurait peut-être quatorze appareils de radiothérapie qui vont couvrir les quatorze régions c'est fabuleux. Mm-hmm. ce serait fabuleux. en même temps ñu insister ci ressources humaines yi ressources humaines yi c'est peut-être nous universitaires qui devons former ñun ñoo war a former euh, lépp lu jëm ci chimiothérapeute lu jëm ci oncologue médicaux mhm. lu jëm ci oncohématologue et cetera pour que bu appareil yooyee tegee ak ak euh, hôpitaux yu mucc ay bii ñu tabax ñu nangu ñu nit dem ca région ya mhm. toog fa liggéey euh, ak les appareils de dernier génération et les hôpitaux de dernière génération mhm. yi yi ñu am donc fi may waxee mooy que ni en même temps nañu xoolaat réfléchir toujours dans la même lancée est-ce que du duñu ko def maanaam programme national de lutte contre le cancer à l'image programme programmes de lutte contre le paludisme le, le la tuberculose le VIH et cetera même si programme nationaux yi en général dañuy wax ni c'est des programmes pour les maladies infectieuses docteur Diop wax na ko léegi nee na euh, les maladies non transmissibles donc font partie euh, les cancers et HTA euh, et cetera. Mhm. ñooñu 45 pour cent lay rey ci àdduna bi 45 pour cent maanaam 100 personnes yoo jël 45 dañ ci gaañ muy cancer di HTA di diabète di maladie pulmonaire chronique yi et cetera et cetera donc comme xam na nu loolu nañu insister ci prévention mhm. nañu insister ci diagnostic nañu insister ci traitement nañu insister même ci accompagnement parce que benn instant maladie bi dana dépassé ba nga xamante ni. il faut ñu xool soins palliatifs également. fexe ba nañ ko euh, defe ci sunu miim réew. te loolu yëpp noonu y a que le programme qui peut régler tout ça en même temps et au même moment. Mm-hmm. bien entendu avec un résidu cancer. Mhm. bi nga xamante ni commencé nañ ko mettre en place depuis. depuis depuis presque deux ans même so, plus. Oui. Euh, lancé nañ ko y a pas beaucoup de. de de progrès qui ont été faits oui. mais reste encore à faire malheureusement je dois le dire et c'est comme ça. <laughs> mi ngi noonu sa sa patron du la ci mere parce que hmm. dëgg la te dinañ ci gën a yaatal ci dernière partie mais avant loolu bëggoon naa ñu dem seetaan ni benn élément ndax sànq yaa ngi koy wax ni la santé c'est une compétence transférée. Hmm. te bëgg naa monsieur le maire addu jëm si mbir mi xool ñoom à leur niveau qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement ba participer ci programme de lutte bi nga xam ne bëgg nañ ko taxawal ngir cancer mu wàññeeku fii bu baax a baax dañuy xool élément mu Ndiaye Cissé nag moom mooy président 3 euh, cap euh, santé di ab boo xam ne lu toll ci ñaar fukk ñeenti organisation société civile ñu seetaan kàddoom ci mbir mi dellu siwaat ci plateau bi nekk na lu baax ndax octobre rek ñay dégg ñuy wax ci cancer du sein ñëpp di ko wax waaye jàpp naa ne buñ ko gënoon ñoŋal bañ a yem ci octobre rose rek dina baax mënoon nañ def weer bu jot mu am période bu ñuy wax ci affaire cancer du sein ñu nekk tous les deux mois wala tous les trois mois mais ni ñuy def ba octobre rose bu jotee rek ñëpp dem ci xel seen xel dem ci cancer du sein mu nekk lu annuel mun nañu def ba nga xam ne mun na nekk lu semestriel wala lu trimestriel ndax cancer du sein chaque jour lay faat lu sa faat at ba at cancer du sein donc xeex la bu warul bàyyi kenn bokk moomeel yi muy collectivités territoriales yi dañ leen di ñaan ngeen dugal ci seen loxo bu baax da ngeen ci war a dugal seen loxo bu baax ndaxte yéen yéen a gën a askan wi parce que bu ñuy wax décentralisation proximité moo tax ñuy wax donc na seen ñi nga xamante ne ñoom ngeen di administrer ngeen ñu ñinañ leen mun di ñëw ci maire yi ngeen leen di jàppale ñu mun di def dépistage xeex bi seen xeex la dugal leen ci seen loxo état bi tamit war na yokk dugal loxoom ci cancer du sein war na mën a def ba nga xamante ne képp ku am cancer du sein ñu faj la te doo fay dara war na également yokk recherche yi maanaam dooleel euh, gëstu bi recherche bi di jëm ci cancer du sein nguur gi dugal leen seen loxo ci xeexum cancer bi sein soo leen ko defee laal ngeen famille yépp loolu foofu la Sénégal toll cancer du sein dafay rey nguur gi war na pexe ba ci loxoom. na si ñëpp dugal seen loxo rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy collectivité territoriale donc gis nga ni monsieur le président de 3CAP santé yéen lay adressé wu directement lan nga koy tontu. waaw damay partagé bu baax sa euh, li mu wax que jàpp naa ne xeex la boo xam ne collectivité territoriale yi ñoo war a nekk euh, ci kanam jouer ci des rôles avant-gardistes balaa sax mu yegg ci ci ci kër docteur yi. bi ci jiitu comme ni ko soxna euh, Fatou Thiam waxee tout à l'heure il y a un rôle de sensibilisation bu am solo boo xam ne collectivité territoriale yi war nañ ko jouer parce que euh, li yàlla dogal mooy am nañu ay mbooloo et bu ñu waxee daañ leen déglu hmm. que xeetu acteurs yi mu doon lim sànq muy bàjjanu gox yi muy relais yi généralement on est en contact permanent donc euh, vraiment foofu dañuy woo suñu mbokku maire yi yëpp pour que ñuy jouer rôle yu mel noonu sànq maa ngi ko doon wax ma ne la ñun chez nous à Touba euh, day mel ni mbir mi dafa dafa tombé parce que démb ci loolu la ñu yendu mm. on a benn campagne de dépistage avec un objectif de de trois cent femmes yàlla dogal sax ñu dépassé objectif bi on a enregistré trois cent trente six femmes yoo xam ne dépisté nañ leen mhm. gratuitement biñ ko defee la mairie à participé et des bonne bonnes volontés euh, vraiment di ci sant MCD bi nga xam ne moo ko organisé avec tout le corps mhm. médical bi nekk ci district beeg poste santé bu Toubatoul mais ci trois cent trente six femmes yi ñu dépisté benn cas de suspicion lañ ci am et la collectivité territoriale a déjà pris des dispositions pour gunge kooku déjà li may njëkk a def mooy dès que je rentre demain dina allah dinaa ko recevoir. Mhm. waxtaan ak moom dalal xelam xamal ko ne ko daañ ko gunge daañ ko jàppale elle ne sera pas seule. et que suñu li ñuy ñaan sax mooy que le cas ne soit pas confirmé. Mhm. parce que suspicion la ñu wax. Mhm. mais si fois dañ ko bëgg dañ ko bëgg a préparer psychologiquement. ba nga xam ne si fois l'information su confirme. ñu mën ko gunge pendant tout le processus c'est vrai que nag euh, collectivité territoriale yi mën naa ne seen seen seen seen principal euh, bailleur seen mamel nourricière c'est l'État donc lépp day ñëwaat ci état. Mm-hmm. deele moo ko fi toogal tey xam naa ne moom dina dina yóbbaale ay plaidoyer yu bëri. Mm-hmm. et que on doit certes reconnaître que beaucoup d'efforts beaucoup beaucoup d'efforts ont été consentis sérieusement ça moom il faut le dire. mais nag il reste comme elle l'a même des des d'autres efforts à faire boo xoolee tey euh, ci ci ci ci prise en charge euh, mën naa ne du du sax euh, cancer kese la santé elle-même est une compétence transférée daa bokk ci domaine de compétence yi ñu jox collectivité territoriale yi comme éducation ma jàpp ne moom ak éducation ñoo ëpp solo ci liñ transféré collectivité territoriale yi mhm. mais transfert la boo xam ne état il faut que mu gën ci dooleel collectivité yi mhm. parce que tey pour gunge décision boobu mu jëloon mooy transférer ay domaine de compétence état dafay faral di def at bu jot mu yëkkati ci gafakam ay koppar pour jàppale ko collectivité yooyu mhm. boo xoolee jàppale gi am na solo am na fu mu nekkoon vraiment ñi fi nekk def nañ ci effort yu am solo waaye nag buñ ko dollee mu gën a baax parce que lu muy gën a am doole collectivité yi di mën a am doole jàppale askan bi ci loolu mhm. mais yéen à votre niveau ñu ne ndax mën ngeen fexe ba mammographie mu gratuite mhm. de façon pérenne Euh, de mën ngeen si day def seen waa xam nga li may wax premier pas <laughs> li may wax toujours da xam nga balaa nga naan naam da nga fay nekk. Uh-huh. Euh, quel au lieu de demande quelle heure est il faut demander d' abord que c' le temps. Mm. dafay am jafe-jafe yooyu boo ci nekkee ba tey. Mm. mënuloo wax sax waxu waxu waxu appareil mammographie. Mm. parce que am na yeneen yu gën yu gën a banal yu gën yu gën a euh, urgent yoo xam ne boo ko réglé sérieusement cancer li muy nekk nekk feebar bu bu dangereux mhm. da ngay am problème pour wax ci loolu mhm. parce que tey euh, dama koy wax commune bu toll ni Toubatoul un peu moins de cent mille habitants bu fekkee toujours yaa ngi ci stade poste de santé mhm. il c'est c'est un problème temps yi sax ñu ngi xeex pour am un centre de santé secondaire DLM ñu ngi leen ci DLM yaa ngi dégg loolu tam c'est un autre problème pour ngeen jàpp ci <laughs> beneen bi ci topp mooy le transfert très rapidement transfert bi da ce am loolu communes yi ñoo ko moom mais da cee am loolu département yi ñoo ko moom. Mm-hmm. or département yi ku ne xam na ne seen recette seen budget duy demee noonu. boo jëlee lu à partir du centre de santé c'est la compétence de du conseil départemental donc tey ñun suñu district sanitaire. mooy bu xombol euh, normalement c'est le conseil départemental de Thiès qui est compétent. pour mun a jël yenn affaires yi. donc loolu aussi lu mat la waaw am am am na solo madame Fatou Thiam ci yow laa bëggoon ñëw ci sa xalaat ci état ak collectivité territoriale yi nga xam ne jàpp nañ ni war nañoo nekk partenaire justement pour xeex euh, bi lépp euh, jàngoro. bien sûr que si. Mhm. Euh, le schéma bu ñuy teg j'ai entendu parler d'un programme loolu daf may neex parce que ça dépense ni ñu koy ni ñu koy traité actuellement un programme il est large donc Euh, damay damay jàpp ne mhm. état moo teg politique am ne moi j'ai j'ai l'un de mes mooy régalien mhm. mooy de créer des pôles de développement pour que population yi mën ci am mhm. état moo ko wax il a trouvé le chemin de décentraliser au niveau des collectivités donc les collectivités représentent l'État dans le cadre du développement local qui implique la santé qui implique l'éducation euh, euh, qui implique aujourd'hui l'énergie mhm. et aujourd'hui qui implique beaucoup de choses énormément de choses yi doomu adama soxla mhm. pour nekk dans un environnement de développement mhm. alors il devait doter les collectivités locales à l'aune de cette charge daf leen daf leen war a doter à l'aune de cette charge mais collectivités territoriales yi ont raison amuñu mais ñoom tamit dans leur euh, rubrique budget ils ont mis une rubrique santé rek t'as pas santé de des mères et des femmes. maa ngi yow laay attaqué yow laay attaqué je suis tout le temps à côté de vous. c'est pas spécifique. Mm-hmm. te bu ngeen ko envoyé noonu. Mm-hmm. mais du euh, ci loolu laay teg sama loxo mooy si mm-hmm. cancer yi deete jigéen ñi. mais am na yeneen yu am solo ci hôpital bi nga xam ne bu dee moo taxaw nekk ci moment bi priorité fa lañ koy dugal. donc il faudrait pour aider les femmes il faudrait mettre une rubrique santé de la mère et de l'enfant. est-ce que am ngeen ko. Euh, en réalité. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est la problématique bi ñëwaat rek ci la nomenclature budgétaire. boobu laay wax nomenclature bi budgétaire bi dafa yàgg. Mm-hmm. ça date de mën naa ne moom a màgg. pourtant fa doon ñëw ñu ngi xeex pour que. <laughs> vraiment état mettre ko à jour. lay jàppale fa doon ñëw il la nomenclature budgétaire des collectivité territorial tenant compte des besoins. absolument surtout des besoins yi nga xam ne c'est des besoins très urgents. Mm-hmm. aujourd'hui cancer bi nekk na un besoin très urgent. Mm-hmm. yéen vous faites plus de cinq cent collectivités. n'est-ce cent et quelques collectif mm-hmm. si chaque collectivité chaque collectivité ou deux collectivités yu dend nii voisines ñafe woon nañu ba am benn mammographe l'accès à au diagnostic dafay yokku donc bu ngeen mun la am chaque collectivité benn te nekk war na nekk une demande pour l'État bu ngeen di demander l'État parce que nag nous allons vers notre pétrole et nos gaz notre gaz mm-hmm. il faut pas euh, être frileux pour pour le dire <laughs> le, le pétrole et le gaz doivent financer les gaps mm-hmm. en termes de développement mm-hmm. parmi ces gaps il y a les les les enfants xam nga ne xam nga ne yow l'école wax nga ko léegi y a beaucoup de problèmes ouais. qu'il faut soutenir mm-hmm. mais lekkool même peut attendre la santé bakkan la mm-hmm. donc il faudrait que l'État revoie par rapport à cette attente bi ñu am ci gaz ak pétrole bi mm-hmm. soxla ko lool ku nekk ngaang ñuy xaar ku nekk fan lay fajee qu'il qu'il qu'il gère les gaps qu'on puisse leur parce que bu ngeen leen ko laajul bu baax a baax a baax en leur montrant que lii foog ñu taxaw ci gàpp la kon ñoom duñ ko xam parce que yéen le plan d'action wala le plan stratégique wala quel que soit le plan bu ñu war a def pour accompagner le pétrole et le gaz les besoins ci base bi la war a jóge c'est fondamental les besoins doivent quitter la base et doivent doivent être des besoins très sonores chaque jour ñu koy dégg très sonores pour euh, arriver à dire effectivement li c'est un gap boo xam ne foog ñu dindi ko parce que nag dinañu am schéma elle a donné un bon schéma de programme oui. le programme est plus large, plus, plus ressourcé et le programme peut prendre plus de, peut-être plus de choses et réduire beaucoup de gap Mais yéen tamit, vous avez les communautés autour de vous. Mm-hmm. Alors il faudrait que euh, ngeen taxaw parce que loolu commune euh, société civile du leen ko balde mm-hmm. danaan yéen yéenay accueillir la RSE am na ndax ñu amul RSE mais yéenay accueillir RSE et il la coopération décentralisée am na wala am na oui am na dans certaines communes. am na man xam naa li may wax man ak commune yi man ak commune yi depuis plus de quinze ans. très rapidement mm. donc les communes sont capables. Mm. s'ils crient haut oh ñu dégg leen parce que vous devez crier haut euh, vous avez beaucoup de gap. et les communes également sont capables de créer l'environnement mm-hmm. de de détection de détection de la maladie par les mammographes état bi également dans ce plateau ñu ngi koy wax ne ko. il faudrait que moom li muy joxe kontaan nañu. xam nañ ne am na fu mu commencé fu metti av indi na des avancées. et ces avancées là ne sont pas seulement sur le cancer des femmes sur les cancers des femmes mais même sur la mortalité maternelle il y a eu beaucoup d'avancées. Mm sur d'autres choses il y a eu beaucoup d'avancées. mais on réclame encore et encore parce qu'il y a d'autres besoins qui sont là. Mm. donc il faudrait qu'ils puissent avoir un schéma avec les les spécialistes. Mm durable mm-hmm. et un schéma qui puisse être un schéma ou la gratuité se sent oui. par les femmes pour que ñoom ñu mën a jël de manière holistique tout toutes les toute la prise en charge en termes curatifs liés au cancer parce que mmh. il nous tue nous les femmes mmh. il nous tue nous les femmes donc ñun dañuy yuuxu waaw mm-hmm. ah, dañuy yuuxu jëmale ci yéen mm-hmm. vous êtes la gouvernance décentralisée une minute gouver jël jëmale également ci état mhm. parce que état mooy vraiment la gouvernance globale mhm. te en plus comme on le dit la santé elle constitutionnalisé donc merci beaucoup c'est ça. que je voulais noonu malheureusement temps bi ñu mhm. joxoon moom moo jeex. xam nga du mhm. doy pour waxtaanee lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram. Mhm. rawatina cancer du sein waaye du ñàkk ñu dalal leen ci yeneen jotaay justement parce que plaidoyer bi du jeex. nous avons tout le mois d'octobre mais pas que nous avons toute l'année justement. pour parler de ça alors très rapidement pour tàggatoo docteur Diop da leen mën a xaarandi ci nguur gi très rapidement au euh, na ko léegi xam na benn programme aller plus waaw vraiment jot nañu euh, plaidoyer bi je mhm. pense que plaidoyer bi nga xam ne ñëpp dañ koy partagé la mooy euh, xam nga cancer moom euh, dafa nekk lu nga xam ni wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp mhm. su ma nee ñëpp nag mooy état mooy collectivité mooy communauté mooy partenaire mooy tëb mhm. am naa yaakaar bu baax parce que Sénégal léegi am na pétrole am na gaz am na or mais surtout au niveau de ministère de la santé. Mhm. ñi ngi waxtaan tam nañ ci yaakaar bu baax ci yeneen financement innovant yoo xam ne dafa jógee ci taxation sur l' alcool. Mhm. taxation sur le tabac. Mhm. ak taxation yi nga xam ne dafa jógee ci cosmétique loolu am na yeneen réew yu nga xam ni ci taxation yooyu la ñuy jël moo financé bu baax seen ni politique par rapport aux maladies non transmissibles et au cancer. donc loolu yaakaar naa ay. Euh, yaakaar yu am solo la yoo xam ni buñ ko wéyalee mën nañ am en tout cas moyen bu baax mhm. ba def gratuité à cent cent sur toute la chaîne par rapport au cancer. am nañ ci yaakaar monsieur le maire très rapidement à votre niveau xam na nee nga mammographie gratuite xëy na teel na pour wax ko waaye am na ay jéego yu ndaw lu ci mel nii euh, di organiser ay séances justement de dépistage c'est une mm. manière de participer justement à ce que maladie bi jóge waaw xanaa di di ñaaxaat collectivités territoriales yëpp dans le cadre de l'élaboration de leur POCT euh, muy plan opérationnel des collectivités territoriales euh, en attendant la mise à jour de la nomenclature budgétaire vraiment ñu ci ñuy jël en compte euh, aspect yi mm-hmm. feebar yu mel nii teg ay dispositif yoo xam ne dina mën di gunge askan wi ci prise en charge euh, euh, dépense u malade bi yëpp pas bu ñu mënul jël yëpp aussi ñu gunge ko ba mu xam ne vraiment gunge nañ ko en tout cas ñun à ce qui nous concerne en ce qui nous concerne chaque année bu ñu ci amee trois quatre on accompagne malheureusement l'année dernière on en avait quatre ñaar ñi décédé nañ ñeneen ñi ñu ngi on se bat toujours donc euh, ñu euh, invité tous les maires tous les présidents de conseil départemental à augmenter améliorer euh, l'accompagnement bi ñuy def parce que comme ni ko deelem waxee c'est c'est c'est une problématique qui concerne qui interpelle tout le monde. oui yow sax bàyyu la bàyyul kenn. ku mën a ñaan nga ñaan ku mën a jàpp nga jàpp. xeexu ñëpp la na si ñëpp soob seen loxo. professeur Fatou pour euh, terminer. pour le mot de la fin xanaa di delloo njukkal nguur gi. par rapport à tout ce qui a été fait. Mm-hmm. dans le cadre de la prise charge du cancer mais on leur dit encore mieux faire peut encore mieux faire. ñu ngi leen di ñaan buñ ci gënee mën a jàppaat. Mhm. pour wàllum xeexum feebar ci réew mi xeetum euh, cancer surtout mhm. canceru jigéen yi parce que mhm. jigéen mooy lépp jigéen mooy jur jigéen moo yore famille jigéen mooy yore réew mi jigéen moo tubarkal il faut que daal góor gi gën a jàppale jigéen joojee pour santeem mën a mucc ay foofu laa bëggoon jeexale c'est important madame Thiam waaw euh, comme tout le monde laa di rek euh, ñun ñëpp ñu ngi ñaan jigéen ñi seen bakkan ñoŋ ci cancer du sein ak cancer euh, li bi nga xam ne mooy cancer du cole de l'utérus tout en sachant que état bi def na lu bëri ci santé de la femme mm. mais quand même ñun communauté bi rek lañu xam mm-hmm. donc on s'est dit que l'état se doit de de gérer des yoo xam ne ñi ngi bokk ci santé jigéen ñi. Mhm. ñi ngi bokk ci santé xale bu jigéen bi. alors euh, ñi ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan avec les les personnes qui s'y connaissent euh, sur la maladie avec également les communautés. parce mm que elles ont des représentantes. de bâtir un schéma. Mm durable de gratuité. Mm -hmm. on a des professeurs avec nous elles ont parlé de ils ont parlé de de de programme moi je suis d'accord pour programme. programme parce que xam naa l'impact d'un programme mm-hmm. sur une maladie euh, boo xam ne dafa nekk maladie santé publique xam naa impact bi muy am foofu mm-hmm. mais il faudrait peut-être ferrer ce programme accompagner ce programme pour que les communautés ressentent mm-hmm. en leur sein la gratuité. c'est important waaw ouais, c'est mm-hmm. mi ngi noonu li leen doon indiloon tey ci plateau spécial fas yéene waxtaanee cancer du sang ni ma ko waxee sànq chaque année dinañ am 1500 cas kon jàppaleen ne at bu jot dina am jigéen yoo xam ne cancer du sang dina dal ci seen kaw moom moo waxaloon ñu defal plateau bi ngir justement porter ce plaidoyer jëm ci euh, gratuité euh, exclusive mais vraiment lépp loo xam ne soin du début ba à la fin te li nga xam ne moom mooy trois moom moo porté bi lépp euh, plaidoyer jëm ci gratuité mammographie ci collectivité très territoriales yi ak gratuité li nga xam ne moom mooy prise en charge médicale du ñàkk ñu gën a yaatal jotaay bi ci yeneen waxtaan ndax li ñu ko waxee cancer du mois d'octobre mais c'est tout au long de l'année ndax at bi yëpp li nga xam ne moom mooy cancer du sein te ku ci nekk rek war nga cee sóob sa loxo ngir mm-hmm. fexe ba wàññi impact bi nga xam ne mi ngi koy am ci société sénégalaise bi euh, mi ngi noonu li leen indiloon di leen wax ni ngeen wéy nag programme première chaîne de télévision privée du Sénégal jaa ngeen jëf et bonne suite des programmes